mu mel ni Maodo li daan jaaxal ñu bari ak ñi ko donn moom Maodo Maodo am nañu ko donn mu di ci seen benn cours ñeenti catégorie intellectuelle dina ci am satisfaction te ci benn cours bi lay doon homme de lettres yi bu Maodo waxee tex ñu daan ndax façon bi muy livrer texte am dina bari ko am diplôme texte bi def lay daaneel bu dee ñi nga xam ne ay fuqahaa lañu te mooy juriste yi ñoom it bu ñu fekkee daara Maodo daf leen di daaneel ndax ni muy décortiquer usulul xukm waaw waaye daf ko donne ci patron te mooy cheikh ndax moo indi jawahirul maani moo tax mu nekk ustaadul asatid waaw waaw kenn xamul seen seen mbir da ngay xool ci façon boobu mu doon tawiile waxinu Junayd Junayd koor dafa jot am taalibe yuy jàng si ci moom te wooruñu mu toggal leen añ ba noppi bokk ak ñoom añ ba فقهاء يدف باسكو نيو نغي سي بير دارج نيكو سي بوتيغو كورلا موني وا بوتيغو كورلا دي يغو علي نك موناي غان لا ام مولين تا اكرام الضيف فضله كفضل الصوم خالل مودني بولكو تأويل موك تأويل فهمي نحكون دنجي دانو بنا في غانيو باري دوغل كو تي تأويل إلهامي رك لا وحاك موم بمو سنكو موم رك كو ديك موتاك بوجه سوري واو واو كيخنا واو دو دك

libérer ñi ko yaakaar ci stratégie bi Moussa utilisé ba libérer banu Israël te na xamul nu mu demee doon noonu la libéré ñi yaakaaroon yàlla ak yonent bi ci réew mi te tubaab yi nekk fi mu def fi ñetti zawiya ñu defee ni sa gëg si gi rekk la fekk xikma ba ëpp na ba xëy sauver ñi mu bëgg a sauver yépp waaw te kenn jamu ko waaw xalili yu diini nag waaw te mooy fayda ba Ibrahim amoon ba diine bu nit mën a indi ci kanamam bu dul bu yàlla wàcce dana fexe ba nga yëg ni amuloo légitimité te du la provoquer parce que am na koo xam ni doo ko wax ni ko li nga yor baaxul da ngay fexe ba génne résultat bu ëpp bosam qul ya qawm i'malu ala makanatikum إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار مملا ديك غورغي وحني موضو مك توباب يي مسونيكو سانت دارا بامو غانتال دا نين توباب دوكو واخ ديت نين بوكو واخي ديت كي سا كاولا جيم نين بوغنكو مسان واخ دارا ميم بوكو دول ديف ديف واو ne bu ñu toggee ñoom ba xoolaat lañu ko waxoon gis nii defu ko dañuy gis xikma ba nekk ci biir ñu dellu si ci moom ni ko ah, nangam bi ñu la waxoon kat dañ ko seetaat waaye gis ni lii ak lii mooy tax du mën a nekk mu ne ah rekk xam na ko bu yàgg waaw ah, stratégie boobu sagesse boobu maturité boobu ci la battre ñëpp soo ko nekk nag sunniyun li muhammad waaw waaw rigueuram ci doxal li fi yonent bi bàyyi loolu ku ko ci topp sax àdduna tukki waaw ndax li Sëriñ Aliou ngay doon nettali Seydi Cheikh ni ko Maodo daan na ñëw defaral ko lalam guddi pour mu wéeru tuuti noppalu waaye bu ma xëysee gis ni téere yi ñoo fanaan ci lal bi nee bu ko defee ma ni ko waaw góor gi xanaa nelawuloo mu ni ko ah ku dul nelawaamul di dama ko dul sàkku rek waaw ah. jeex ah. Ah. na ba bi muy wàjja wuy ci boroomam te nee na bu xëyee rek woo Serigne Alioune Gueye mu ñëw mu Serigne Alioune Gueye ñëwee ne ko jëlal sa loxo defal ma nii Serigne Alioune Gueye def nii ñaari baaraam yi du daje mu ne ah kon des na jërëjëf barakallahu jërëjëf beneen yoon mu woowaat Serigne Alioune Gueye mu ñëw mu ne ko defal ma nii mu def nii baaraam yi du daje mu ne ak ah, kon des na nee na ba benn bis nag sëriñ Alioune Guèye ñëw mu ni ko defal ma nii nee mu def nii ñaari baaraam yi daje nii mu ni ko kon nag dem jot na ndax kuy ñëw tuuti lool war nga booy dem tuuti lool loolu lu mu firi mooy doofan ja ak doofan ja lo le fini te kenn dégg ko kuy ñew tuuti lool war nga boy dem tuuti lool waaw loolooy tax donc homme de lettres yi dañuy daanu ci kuuru mawdo ndax texte bi ni mu koy indee duñu ñu gis ci rafetaayu texte lu mel noonu waaw ah. bu dee juriste yi façon bi muy interpréter profondeur yi yalla tëral ci alquran fay dépasser ñom sen dégg ci texte Wa, xam nga mo waral le góor gi nettali woon ba muy firi alquran te am kuy ñew di téwé firi mi te ndekete day xaar rek fu Maodo ba mu ci kaw Maodo ba benn bis Maodo am lu mu wax mu weddi Maodo ni ko téere bi waxul loolu Maodo ni dënn ba ci yàgg mu ni ko sa téere moo juum waaw mu ni ko moom mi def sharxa bi moo juum parce que dafa def sharxa baat bi te baat bu mel noonu kenn du ko def sharxa dañ koy def ta'wil waaw waaw moo tax gis nga bala ngaa mën jàngale mbéti nga xam li nga xam ni charx lañ koy def ak li nga xam ni tafsir lañ koy def ak li nga xam ni tawil lañ koy def foog nga xàmmee ñett yi waaw looloo taxoon Maodo daan na sonn ci ay njaboot yi boppam pour ñuy bañ di jàng njàngum mbedd loolu taxoon bés Seydi Ahmed Sy mii magu Sëriñ Babacar fekk Maodo di fiiri al Quraan mu ñëw ni Maodo abal ma Maodo jóg bàyyil ko place ba pour mu continuer firi bi moom Seyd Ahmed waaye nekk Maodo nga toog nele tuuti rek di ko déglu muy firi ba ca yàgg Maodo ñëw ba ci moom نيكو سيد احمد بوت يمكو خول مو خول كو مونيكو فيريل تبول دوغو فيريل تبول دوغو ما توغ غورغي غورغي سنو غورغي تي رقبه مولا ما موسف اني كل بيك اني مال القران غاينه alquran gaynde la gaynde nag buñ la booleeg moom tëj ci kaaf war ngaa jàng jat mu wax ma ko ni ma mu sëf ma ne ko labbayka mu ni ma alquran gaynde la te gaynde nag buñ la booleeg moom tëj ci kaaf war nga jàng jat ma ne ko soxlawuma ko mu ne ma lu tax ma ne ko dama am ku ma ko jatal ba noppi fa ka annaka alfurqaanu fi ijazihi waaw xaqan wa fi lifdaaxi lilfurqaani fa ka annama ixtalatat bi ruuxika kulliha ayatuhu fadlan min arrahmani kon am na ku ko jat ba noppi waaw waaw mu ree waaw mu ree ni ma loolu di kenn amul loo ci teg ma ok c'est très important waaw waaw waaw moo tax homme de lettres puis ak juriste bi ñi nga xam ni wàllu philosophie moo leen intéressé kuuru Maodo daf leen di daaneel parce que thèse yu philosophique yi muy dégagé ci cour bi dañ ko dul lu dul ci la waaw parce que c'est rare ñu gis nitu diiné buy am audace di affronter thèse yu philosophique ndax ñi ko ñeme barewul Ghazali sax mu ne ndax philosophie ndax dañu xaw a am ñàkk kersa ndax seeni doute du nekk doute bu positif li ci ëpp dafay nekk doute bu négatif waaw te buñ lay contester duñ ko teg ci certitude ci calcul lañ koy teg loolooy tax toujours nag teesu Maodo di leen jaaxal waaw parce que Ghazali li taxoon mënul jubu ak philosophie mooy dafa doxale digganteem ak ñoom méfiance te ku méfiyewu ci moom rek mu am fu mu yem Maudo, l'unit panque, panque, panque, d'où méfier ou tiao, mais d'une prudent. Pour cette qui nous voulait aborder. Voilà. L'on est tard. Si vous avez des ak it ni mu doon teyloo boroom xam-xam yi interpréter xalaatu lislaam ko leen ah, ko mu toog ay ci toppatoo leen ko waaw dawal xanaa bokk bii boom ñemewuma ko laaj tey moom waaw ndeysaan jot naa sama mbubb ma waaye yi del na ma mbubb bu rafet waay ndeysaan waaw ah, ndeysaan fa tabarakallahu ndeysaan waaw ah. mu taxoon mu daan indi waaw kay ah may leen sama mbokk bopp bi mu ñëw waay ah سيرين محمد المكي عبد الودود عيسان ايجا سيد مختار تبارك الله جيرين جن جيف الله نيسان تبطوك دلغ نيسان الله نيسان جيرين جي دلو سي مو جيسي دان attirer attention ni jàng ki di wax la taxtarru bi zawahiri nusus te interprété interpréter ni ne vous trompez pas sur la rigueur apparente des textes Mana yalla waxam foog mu duuf mais wax bu ne veut pas dire que nit ki méchanceté moo nek ci moom dinay faral di dal ñu bare di gën sama setu sëriñ bi sax mu ngi koy wax ci intervention kérok ci cour bi mam Cheikh eh, di wax ni bu len di wax ni gor gi dafa tang ah de me suivre ci ben émission ci télévision humoriste di wax rek pour les nit ñi mu wax ni façon yi j'ai d'autres chats à fouetter mu ni boo wax yalla bu mu fekk nga yor sa muus di doxantoog mom ndax bo wotul di nga ñak muus ma ndax dina ngay wax c'est très important mom bi koy wax daf doon reeloo nit ñi mais fekk hikma bi ci bir ëpp waaw te modi li li nit dana wax wax بووتي واخ با فمو ورا جيم ريك دا ngay القران يو ياي ديف ييتي ساخ سبب النزول مي امول ايه بومو واتشي wax directement ki aaya bi concerné yow yay def sa yittey bop rek pour xam sababu nuzul mais du ko cité parce que du wacha aaya bu concerné une personne dafay wàcc aaya pour mu concerner tout le monde day nekk genre seetu ku taxaw ci kanamu seetu bi rek gis sa bopp waaw loolu taxoon Maodo ci wàllu philosophie mu di jël baasam ci alquran waaw te bañ ko jël ci théorie yi ñuy faral di waxtaane walu falsafa parce que ni ko góor gi waxe won ni falsafa ñun ñoko compliquer compliqué mais passewul alxikma waaw te yu'ti alxikmata man yasha wa man yu'ta alxikmata faqad utiya xayran kathira wa man yadakkar nag illa ulul albab waaw looloo tax Maodo toujours même sur le plan mystique fay am fum dan yem lo nit ñi ndax nit ba la koy yóbbu ci fenn fu kawe da ngay am foo tàmbaleeg moom ba noppi puisque li ñuy wax ni l'horizontal l'horizontale nous montre ce que le vertical nous cache. C'est très important. L'horizontal nous montre ce que le vertical nous cache. تموي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هي مونيك يو هوريزونتال مي نك نو مونتر سكو لو نو كاش تموي بو يويو ak tumuranke gi ci nek loy xalat moy foog nga xalat ku len bind kon nak fa dakkir innama anta mudakkir amna ku nga xamni bul ko forcer tete ko ndax dafa am domaine yu nga xam ni nit mën na jàng ba am diplôme yépp te du ca mën a xuus moo tax fokk nga tette ko looloo taxoon yoon ci yàlla Muusa lu jare déglu la dafa xëy bés wax ni dafa bëgg takk jabar bu tudd xam-xam yonent yàlla Moussa wax ni dafa bëgg takk jabar bu tudd xam-xam ñu ni ko xam-xam bi nga bëgg a takk ku ñoo tudd xadir lañ ko bàyyele mu ñëw ci xadir mi ñu bàyyee la xam-xam ni ko duma bëggoon takk ki ñu la bàyyele mu ni ko ndax am nga canam mu ni ko luy can bi mu ni ko sabr mu ni ko sa tajiduni sabiran mun ko kon amuloo can bi innaka lan tastatia ma'i sabra c'est extraordinaire sa tajiduni sabiran mu ni ku nekk sabir du tax nga takk xam-xam كن يقول لن تستطيع معي صبرا بس كصبر بينك يا صابر بنا بلي سوغنيو حملون لولا بيت من لا خاوما نخ دين ولا ديت لولا بيت من لا مي لي moy li lay betti bett la ba nopi tu mënu fofu la sabr bi amee solo mu ni ko ndax boo àndeek mën lu bari dana la bet te kum lu la bet mën la ta xawma ndax wajal nga sa bop wala det mu mu ni ko sa tëjëdu ni sabiran ñu ni mais bi ci am solo moy batu hal attabiuka بات بوبو موتي اوبو دولي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ndax may nga ma ma topp la ndax loo ruusal ci xam ñu ko yaa ma ñaan pour topp ma mu ni ko kon bala ñuy joxe can gi ñu ñu yar kayfiye bi ba noppi kayfiye bi ngay joxe can bi fokk ñu yar ko ci yow ba noppi N'a soog a mën a joxe can bi kon nag li ma lay ñaan comme yaa ñaan pour topp ma bul ma laaj lu may def muy bat bu am solo topp kilifa ak ànd kilifa bokkul moo tax xaw xadar bëgg na ko tette te amagul can bi fase ne ko fase bu jëkk muy fasem yar te mooy ca gaal ga ndax def ko bett li ko bett mën ko parce que sabru bi ñëwul ñu yàq gaal gi mu tëb nit xadir li nga def lan la مفاسكو فاسم يربجك ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا مفايلي بابا قال لا تؤاخذني إن نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ويقول له تح أنا دنقى فاتني يا موسى yaay kalimullah duma la offrir cadeau bu ma lay jàngal duma la jàngal jàngalu combo parce que yaay kalimullah kon bu ma lay jàngal ci auteur bi yàlla bëgge ci laa lay jàngale ni ko nag dinaa la pardone bu jëkk bi delloo siwaat ko ñu demaat mu dajeeg xale ba rendi xale ba mu xëm di ko li nga def lan la mu fasewaat ko fase ñaareel bu yar alam aqul laka innaka lan tastatia ma'i sabra mu fay liwaat boppam satajiduni sabiran waaw bu jëkk ba bokkul ak bu bu ñaareel bi ni ko in saaltuka an cheyin baadaha fala tusaaxib ni mu ni ko foofu nga daanoo parce que hal attabiuka nga ma waxoon léegi nga mujj ci fala tusaaxib ni comme danga ma waroon a topp rek topp ma boo bëggee léegi nag def ma ànd du ñu dem fu sore waaye mu fay li boppam fay li bu ñaareel bi ba ci ñetteel ba ñu romb sàkket ba doon waaja daan mu ñëw ne ko kaay ñu joyanti sàkket bi mu ne ko ak ni ñu xiife dinañu laaj bokk fay mënu ko passé passé ñett la fay li naa la ñaari yoon marché wul hada firaqum wa baynak mooy loolu mm. fa imsaakum bi maarufin mm-hmm. أو تسريح بإحسان ولا تحبوا من ولا ولا تمسكوهن ضرارا وتمنكو هذا فراق بيني وبينك منكو جيسنغ خمغ لما يالا بولك يو منكو نيتي ميثود يما لا جانغالي مول رير mun ko gis nga méthode bu jëkk bi ci bateau bi mu ni ko am ah, mu ni ko taxarruk la mu ni ko gis nga méthode yu ñaareel bi ci xale bi mu ni ko am ah, ko tatalloo la ko gis nga méthode bu ñetteel bi ci sàkket bi mu ni ko am ah, mu ni ko taxallus la mu ni ko am na ñu nga xam ni seen xam-xam feeg boolewuloo ñett yi da gawa gaaw a dugg ci gàmm mu ni bi mu moy at taxarruk ila nataiji duna al asbab am na foo xam ni boo fa tolloo doo seetlu moyen yi fin bi ngay seet lan lay jur moo tax bala ngay sédd sabab da ngay sédd fi yëf yi jëm ba noppi mooy mooy mooy taxarruk bi al taxarruk ila nataij la ila al asbab mu ne ko moom laa def ci bato bi parce que am na pirate bu nekk ca kanam bu ma bàyyi woon bato bi mu dem rek dana boole nangu bato bi ak li ci ne ba noppi jàpp leen ma bëgg def le moindre mal te mooy ma yàq bato bi ñoom ñu bañ dem ndax pour ñu amaat bato dina leen yomb te ñoom ñu libre nataij yooyu moo tax yàlla ni mën a yàq bato bi kon boobu taxarruk la mu ni ko ñaareel bi nga xam ni nag moo jëm ci xale bi mooy tatallu ak tatallu ila al bawatin duna bawahir te mooy nit ki doo ko àttee ci bitim danga koy àttee ci biiram xale bi yaru na ci biti nii mais fa mu jëm bu fa yéggee ay waajuram dootuñu xajob moom moo tax yàlla wax ma ni ma naa ko téele éliminé bala mu faa yegg sëpp na ba gis baatinam te ay waajuram gisuñu ko kon il fallait ma éliminer ko mu teel texe mo gën ma bàyyi ba mu yegg ci xoñuñul ay way juram safara di ko ci fekk boobu mooy tatalloo bi bi ci dess nag moy takhallus bi moy ak takhallus min al manfaa al xaas ila al manfaa al aam te moo di nit ki war na muy seddi intérêt personnel mu séddi intérêt général ba noppi mu ne ko ndax intérêt général moom ma jaral may dem di joyanti sàkket bu ma moomul ndax seeni boroom war a ñëw ëllëg war ko mën a jariñoo mu ne ko ñetti méthode yii ci laa la jàngale maanaam mooy pédagogie pédagogie xadar ci boppam mu def nag erreur bi nga xam ni moo tax mu fase ko xam nga toujours booy dem ci li ñoo tuddee email da ngay am sa compte compte email da nga koy am mais boo amee compte email bi pour ñu yónnee email bi foog mu laaj la identifiant bu la laajee identifiant ba après mu laaj le mot de passe pour nga soog a jot email bi loolu le le le le Moussa jotul xam ci xam-xam bi parce que compte bi moy sabre bi ñu tuddu identifiant bi moy ar-rushd bi mu tuddu ala an tuallimani mimma 'allimta rushdan bobu moy identifiant bi astaghfirullah rushd bi moy mot de passe bi identifiant bi mooy shahada bi parce que bi muy ñëw ci xadir dafa ñëw ka shahidin te ñëwul ka mashhud ñëw di sàkku si xam-xam ba noppi bëgg a àtte ki lay jox xam-xam bi foofu la jëme parce que shahid bi mu jël xadira ko moom mom mashhoud bi la mom moy identifier am mom mu bàyyi fi bosam djel bu khadir motax sen ande ànd won sori motax lo ci meune deg xam xam-xam bu bari jarul jàng fexel ba disposer ñetti element yi amal mot de passe bi mooy roshdo bi amna lo xamni kumu jitu wul ci yow da ngay tari la ci téré mais xam-xam ñëwul te mooy rusdu bi waaw bi ci des mooy li wolof yi wax loo nekkul ndonga la doo nekk sëriñ ba waaye Seyid Cheikh nag am lu mu ci teg moo di weex taat toxul ndonga di jàng waaw kon boo demee ba bàyyi si lépp am koo fekki dafay am loo nangu te mooy boo ñëwee bul fa nekk mashhud ah, shahid nekk fa mashhud waaw gis nga kuy ànd kilifa doo wut keneen man euh, kuy topp kilifa bokk kuy topp kilifa doo wut keneen koy àndal xaw ma ndax dégg ngeen wax bi walla déet kuy topp kilifa walla ngay topp sa sëriñ bu la war a jàngal doo seet keneen koy àndal parce que ñaar yi la ànd top kilifa bo nopi am kenen koy àndal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj lutax ummat ommat këtu gëléem fa mu jëkke du fa mujje lutax ummat ommat këtu gëléem fa mu jëkke du fa mujje mu ni la mu moom tànkama tax fuka neex dem te kuy def fu la neex dem daa gis bés loo bëgg te ku gis bés loo bëgg te amuloo ko daa xeeb ka nga ka nga nekkal te ku xeeb ku la tane yàqu ba abadan loolooy tax muy laaj ñett yi nga di ko boole boo bëggee am xam-xam parce que ñaara fi nekk walidul maarif ak yetimul maarif dafa am ku nga xam ni xam-xamu ko jur كي خم خم جر بلا موسى كي خم خم خم خم ساكوكو واو كي خم خم جر بلا موسى كو جي خم خم خم خم ساكوكو موتاح موي وليد المعارف bokkul ak yetiimul maarif dafa am ku nga xam ni jirim la ci xam-xam gisul alalam comme gisul alalam ka yore alal ba foog mu muñal ko moo tax fa amal yatiima fa laa taqa naka nga koy déggee naka nga koy déggee وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أمنا كونغا حمني خمول لنغا حم بوكول فينغا بوك جيسول لنغا جيس جس. kon nag fa mu bokk ak la mu xam bu fa jógee ñëw ci yow donte àdduna gu mu jariñoo moo tax bul ko gàntal mooy fa amal yatima fa la taqhar parce que yatimul maarif la yàlla dafa bëgg bu nekkee yow bu jógee ci yow دوتول نك يتيم المعارف واي مو نك موميد وليد المعارف سي تري امبورطون وا تي موي نيت كي غاني سي تي ياو خامول دارا تي بوي نيبي يوبالي لو كين خامول نو مو تول وا دا فاي لاك نك nga am لو موغ وا كونكو يور سي لير

ma bëggoon xam loo ci xam am na ay nit yu wax ni gis nañu yàlla ma bëggoon xam loo ci xam man ko dañoo tardé parce que moom dafa bëggoon weddi gis gi moo tax mu ni ma loo ci xam man ko dañoo tardé mu ni ma ah ci nan man ko ci bi rabbikum ja ci la ñëpp gisee yàlla jeex kon ku tok ba legui diko ko soog gis da nga tardé ci retard da terre yi ka bok mu bari na loy wax pour wouté ko ay euh, xar bax rek ne nit ki am setlu day xamni danu nga ci kam ñepp ci alastu bi rabbikum jële ñu gisé sunu borom c'est très important motax tax musique baatu musique dafa am ñu koy xaramal walla ñu koy xas di wax ni musique baaxul fekk nitu yàlla yi musique rek la fonk moo taxoon Seyid Cheikh Ahmed Tijani bala mu daan jëm ci naafilaam ñu indil ko ensemble instrumental mu defal ko concert pour mu concentrer wu jëm ci boroomam ñu ni ko lu tax mu ni alastu bi rabbikum ja bi ko yàllay wax neexaayu baat bi ci arwaax yi moom la ñuy chercher ci musique xoolal loolu waaw neexaayu baatu sunu borom bi muy wax alastu bi rabbikum neexaay boobu ci arwaax yi moom la ñuy chercher pour retrouver ko ci musique moo tax lu bokkul bokkul ñépp ci alastu bi rabbikum ci la ñu gisee sunu borom c'est très important moo tax baatu musique baatu musique dafa am ñu koy xaraamal walla ñu koy xas di wax ni musique baaxul fekk nitu yàlla yi musique rek la ñu fonk moo taxoon Seyid Cheikh Ahmed Tijani bala mu daan jëm ci naafilaam ñu indil ko ensemble instrumental mu defal ko concert pour mu concentré wu jëm ci boroomam ñu ni ko lu mu ni alastu bi rabbikum ja Biko yalla wax ne xayu bat bi ci arwaax yi Mom la ñuy chercher ci musique Xolal l'on neexaayu baatu sunu borom bi muy wax alastu bi rabbikum neexaay boobu ci arwaax yi moom la ñuy chercher pour retrouver ko ci musique moo tax lu bokkul bokkul waaw loolu tax nag sunu borom c'est très important ci biir jàngal googu xatir jàngal Moussa ci taxarruk bi tatallu bi

mooy aadamiyaam aadamiyaam aadamiyatu ibni aadam dafay dem bay éclipse insaniyatal insaan mais li koy def lan la an nafs moo koy def ndax an nafs mom la fay taxe enlèvement des ordures liñ nan diw bakanam dafa top bakanam dafa top bakanam bakkan bobu mom la yalla wax ni nañ koy fay taxe enlèvement des